Euh, di euh, wax ni dañu ñëwoon tey ci Touba ànd ak le ministre de l'eau et de l'assainissement sama naataango Serigne Mbaye Thiam waaye tamit ànd ak le ministre bi nga xamante ni mooy Dame Diop yore wàllu xëyu ndaw ñi ak niñ leen di tàggatee suñu ñëw nag tey ci Touba euh, ci benn pàcc bi li sabab bi mooy xool li nga xamante ni mooy wàllu ndox mi ndax mbënn mi fan yii bi mu euh, amee ci dëkk bi ci réew mi yëpp wala en tout cas ci yenn gox yu bëri président dafa digle ni nañu euh, déclencher plan Orsec plan Orsec nag mooy xool naka la ñuy taxawoo askan wi ci ni mu gën a gaawee ak ñi ni mu gën a baree nga xamante ni bu plan Orsec amul service yi bu ci nekk da ngay fonctionner na nga war a doxee mais bu plan Orsec kese am dañuy baral lépp waaye tamit dañuy yokk. jumtukaay yi nga xamante ni moom la état di faral di liggéeyee ngir indi saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom la askan bi di jànkonteel fii ci Touba wala boo demee dakaar fu mel ni Kër Massar wala yenn zone yi ci Yëmbal wala yenn zone yi ci département de Rufisque wala nga dem Kaolack wala nga dem Mbour am nay zone yoo xamante ni am na ay coono yoo xamante ni nit yi ñu ngi koy jànkonteel coono yooyu nag li leen ko teg mooy seen kër dafa am ndox wala seen koñ am ndox loolu gouvernement bi di liggéey ngir indi ci ay solution fii ci Touba buñ njëkkee bu ñu ñëwee ci solution yi nga xamante ni moom la ñuy xalaat ngir mettre ko en œuvre te techniciens yi waxtaan ci ba juboo ñu xamante ni bu buñ ko mettre en œuvre dina am lu bëri lu mu indi ak oyofal ci dund gi mooy bassin wu Kër Ñang bi dafa attanatul ndox mi nga xamante ni mooy ñëw euh, ci taw bi di jugee ci station pompage wu euh, marché Ocass di jugee ci station pompage wu Ndaamatu ak ci station wu pompage wu Touba Mosquée loolu nag bi ñu demee ba gis ni euh, bassan bi attanatu ko ba ñu waxtaanee ñu ne lii si xalaat mooy yokk ni muy manqué ndox mi ci bassin wu Kër Ñang di ko indi ci ñaari bassin wu Daaru Rahman yi te diggante bi jàpp ci juróom-ñaari kilomètres ak genn wàll ba fukki ba juróom-ñetti kilomètres li ci jiitu mooy yàq li yi nga xamante ni fi la ndox bi di ñëw bi ci topp mooy. foofu ci Kër Niang ñu yokk capacité de pompage bi ba mu yegg ci ñaari junniy mètre cube yu yu ñu yu dolliku ci liñ doon pompe def ci ñaari tuyau yoo xamante ni day gën a gaawal ni ndox bi di ñëwee fii ci Darou Rahmane jugee bassin Kër Niang ñaaw ñëw ci Darou Rahmane waaye dañoo jub màggal te ginnaaw dañu jub dëgmal màggal gi euh, su fekkente ni dañoo bëgg def liggéey bi ci niñ ko xalaatee mën na indi ay tolof tolof ci yeneen réseau yi maanaam ci. réseau ndox bi wala ci réseau téléphone bi techniciens yi waxtaan ba juboo diggante direction général ONAS ak seen direction technique ministre de l'eau bi nekk sama wet Serigne Mbaye Thiam jiite ko waxtaan ak entreprise bi ñu jox liggéey bi SVTP ñu ngi ko defee démb sama bureau daanaka fala lañ ñu ni léegi liy solution néggandiku bi mooy dañuy def benn conduite benn tuyau boo xamante ni day jóge Kër Ñang ñëw fii diamètre quatre cent ak cinq cent ñu taqale leen bu ñu màggaleeg jàmm ba noppi beneen conduite bi nga xamante ni moo nekk ci marché bi ñu teg ko waaye ñaar yëpp dañuy gas suul leen bu boobaa ba pare ñaari pompe yi ñuy tegandi fileeg maggal ñu yokkaat ci yeneen ñaari pompe yoo xam ni ñeenti pompe lay doon boole kook ñaari conduite yi ngir mën a gën a e, gaawal ni ndox mi di jógee ci Kër Ñang ak fépp foo xamante ni station de pompage la bu ndox mi jógee ci bërëb Touba di ñëw ci Kër Ñang ngir ñu indi ko fii ci Daaru Rahman loolu mooy euh, li nga xamante ni moo la mën a leeral ci li ñu fi jëlee ci waxtaan waaye tamit ci ñëw nemmeeku ndax biñ ñu ko waxee wax ñu ko ci ay kayit leeral ñu ko expliqué ñu ko dafa jaadu woon tamit ñu ñëw gisal ko suñu bopp ba noppi tamit nemmiku ndax liggéey bi tàmbali na wala déet bi ñëwee tamit gis nañ ñi curage bi mooy dindi ban ak suuf si nga xamante ni mi ngi bassin ci ci bassin Kër Ñang bi tàmbali